ndewoy ndewoy ndewoy seymane ndewoy alaykati kam mangala yaara faïence yi nga xamante ni dafay décorer sa cuisine ba mu ne boy ak li nga xamante ni moo di sa salle de bain ànd ak décoration bu amul fenn ay karo yoo xamante ni boo ko defee sa façadu kër da ngay mel ni ku nekk ci panaal établissement Khadim Rassoul seeni karo du jël benn yoon ndox ba noppi ay qualité yu baax la ñuy jaay te seen karo du yàqu waaw waaw kon nag yow mi bëgg ay karo yu baax dawal gaaw seeti waa établissement Khadim Rassoul ña nga nekk ca Parcelles Assainies ca booru marché police ba C'est le numéro de téléphone 33 820 39 95 wala 77 720 32 44 établissement Khadim Rassoul pas dañuy ubbi du lundi au dimanche à demain. ne kon a boo bëggee ay yu baax dawal gaaw seeti établissement Khadim Rassoul ña nga nekk foofu Parcelles marché police établissement Khadim Rassoul. duñ muy lek muy nan muy reer tëdd lepp lañ ci dem semaine bi bu soobe yalla man mo xamna tay lay laay bu soobe yalla hmm wa day day caaxaan way day caaxaan yow bu arbitre sifflé bala lay feug sa ngemb rek 30 secondes mat. non Modou Lo day wax rek Modou Lo yaa ngi deg am na am na yoon dañuy nit ñi nit ñi da lay respecter nit ñi lay sétan bo taxé né soog ay 3 minutes soog mi ponkol bi dañ ko mëna da ko mëna dal ci si une seconde wala ay 30 secondes ak yoy mat na yàlla ko suñu borom defal jàmm suñu waa mais noonu la làmb noonu la dañuy sant yàlla gëneen góor yàlla dëgg dañuy jël lépp jox ko nit ki comprendre moom nag moom jom xamee naa ko ngor xamee naa ko comprendre kon kii dañ ko sas ñëpp ko sas dañuy ñaan yàlla yàlla ko suñu borom defal jàmm. waaw mais noonu noonu la sas bi diisul bu ko gars yi jéem a diisal sax Franc adversaire la rek te mënu koo weesu si koo xam ne nag deful ci làmb lu ma ci deful. c'est que mooy li gars yi di wax rek parfois lamb moo xaw a baaxoo noonu parfois da ngay jéem a gars yi dañ siy sax jéem a joggi seen tànk mais li wér wóor mooy li ñuy joggi seen tànk noonu bu dimanche ma leeral ko waaw te dama bëgg xamal gars yi nii ñu bàyyi benn xel benn affaire Pikine musta perte bis bu mel nii bis bu mel nii ñu soxla ko rek rek rek rek gis nañ ko ci Boy Niang Sa gis nañ ko ci Ama Baldé Malick Niang gis nañ ko ci ëmm seen Balla Gaye bu njëkk ba kon man Sokh bu ma poussé ba yegg si fii nii ñu gis Franc ñëpp nangu ni jànk la wow kongu ñëpp ñëpp ba ko fi ma jëli ko kon xam naa bis bi li mu ma jaral te caaxaanewu ma ko te fooyewu ma ko képp ko jàpp ni nag soo li muy wax day wax pour naxante wala pour damyee Franc jéemu ma ko sax wax lu koy loo xam ne pour damyee la moom na préparé te xam ni bis bi moom barki maam Seera Fall mu koy neex dina jëflante mu koy naqari dina jëflante loolu samay wax la di départ au fin amul tànk ginnaaw bu ma ciy dellu waaw bis bu ma ñor la bëgg naa ko amul lu ma ci naxante sax. waaw. waaw mais loolu xam nga tey loolu nit ñi lay jaaxal loolu présence su yi nit ñi lay jaaxal mais gars yi li may jëflante ak ñoom du ay waxu média ñii su may frère lañ lu ma leen sonnal rek sonnal nañ ma ko c'est que combat bii nii moo toll foofu noonu moo tax sax ngeen di gis ñoom lekkatuñu naanatuñu nelawatuñu parce que ñoom dañoo tolloon ci journée bu mel nii. xam nañ bu baax a baax a baax a baax bi yeneen combat yi ak combat bii du benn parce que ñoom bañ tollee ci combat déclenchement yooyu xam nañ coono yi ñu ci doon daj moo tax tey ñu wéeru ma di ànd ak man coono yooyu di ko di ko dund ak man ñii nekkul tey lañ mës a jàpp samay làmb de ñii sa sama làmb ku ci nekk lu mu xam ak lu mu mën ci kàttan ci lépp da koy def ci soq parce que yéene boobu la ñu am ci man yàgg nañ maa sonal waaw suñu teewaay fii nii lenn la rek ki nga xam ne moom ŋànk Pikine ki nga xam ne moo ŋànk Pikine nekk kilifa gi muy Ablaye Diop Ablaye Timbo xam nga moom lañ ñëw tey xam nga pour xamal ko ni ko tey bis bii ñu jëm nii daf ñu ñor waaw bis bu ñu ñor la te kenn waru ko cee jiitu moom mooy tet bi mooy pay moo ci war a jiitu ànd ak cent pour cent bi yëpp boo xoolee bi bii ma solo slogan bi lañ ci def Pikine moo ñu ñor lañ ci def waaw bit bi boo ko gisee bit bi lenn dong la boo gisee njëkk nañ def cent pour cent tey bu ñu indee cent pour cent mooy ñi manqué woon sax ñëw nañ. kenn manqué wul essence yi nii moo tax ñu ne deux cent pour cent ndax bu njëkk cent pour cent la woon mais tey bu ñu nee deux cent pour cent rek moo lay xamal ni la tey ñëpp a ngi ci paa yi nga xam ne def nañ lu nekk ci làmb sax tey ñoo ko diriger ñoo ko jiite comprendre nga du lim kenn ñoom ñëpp suñuy papa lañ yéen a ngi gis taxawaay bi ñu ngi gis lépp tey bu ñu demee ba toog ñoom taxaw ñoom ñun waruñ ñoo gën a gore parce que ñoom amuñ luñ ciy gagné ñoom def nañ li ñu war a def ci seen carrière kon ñun ñoo fi nekk kon tey ñoom bu ñu si ñëwee rek Ama Baldé doful boo Niang doful sook doful Eumeu seen doful parce que paay bu ñu demee bu bàyyi seen i yitte bàyyi seeni i temps lépp di sonnal Pikine ñun kenn waruñu see jiitu comprendre nga loolu mooy but bi te daa tombeek mu tombeek komba Sokh bu tombe woon ak combat keneen i tamit noonu lañ ciy taxawee xam nga ñoom liñ ci xam ba tax ñu formé ko tey bu dimanche man doomu góor laa bu set wicc te lu ma wax dinaa ko def bu jaree ma jox sama bakkan bii Franc dinaa ko jox bis bi du ko yóbbu pour mu leer ci ay noppam. am na na ñu kii am ko waxal tey kii waru wax ñu waaw dañ ciy kontaan rek parce que initiative bi dafa rafet xam nga wala soq suñu frère la affaire bi dafa am loo xam ne moo njëkk muy deux cent pour cent bi suñu ay papa créé ko muy lu rafet tamit xam nga ñu woo ci ñëpp tamit ñu ñëpp pour ñu ànd bokk ndey bokku baay te loolu mooy yoon comme soq lu mu ko waxee rek ama wax ko mu tombé nag combat sook te combat sox combat waa Pikine yëpp la parce que comme ni ñu ko waxee rek ñun ñii ñëpp ku ñu nekk lebal na la loo xamante ni nga am sa bis mu ñëw taxaw jàppale yéene la daal jantal booy la xam nga ñun tamit dañ koy ñaanal suñu moom defal ko ndam ñu ngi si ginnaaw di ko jàppale ko dooleel comme ni nga ko waxee moo taal tamit dafa am solo mooy ñu ngi si mag bi ëma seen parce que dëgg la xam nga rakk dafay jox cër mag mag tamit mu yërëm xale yi xam nga jiital mu rafet ko donc ñu ngi suñ ginnaaw rakk ëma suñ ginnaaw mag ëma moom moo géré moom moo ne ci kanam ñu ñu topp ci jàppale soq ñaanal ko comme ni ko waxee rek làmb ji moom dafa nekk làmb. Ah. waaw noonu la demee question bi doomu Pikine moo ko posé muy Mor Tara moom tamit ñàkk ci ñaan moo ko Pape Saara yam président supporter ak Pikine moo ko Pape Saara yam ñoom foo ko laal Pikine laal nga leen dañuy lay jox seen bakkan loolu dañ koy rafetlu comme ni ko waxee rek ñun da kenn dàkku ñoo bëre parce que ñun dañ judd rek bëre muy man seere yàlla ñun dañ judd rek bëre parce ñun ci bëre lañ judd dañ judd fekk suñu ay mag ay pap ay ay ay pa ay baabooy ay Ndiaga Diop comme naan bu ñu limee ay malal booy sey bu ñu limee dañuy juum Jules Balde keneen ak keneen ñun suñu ñun kër ngeem kenn dàqu ñoo bëre bu ñu gis mbër benn mbër bu taxaw ñu waxtaan ak suñu ay papa waxtaan ñu suñu biir ne nii lañ koy daane loolu yomb la te sok nante la xam nga daan na fi mbër bu ne ak façon bu ne donc am na loo xam ne nag suñu affaire bopp la suñu secret bopp la dañ koy téye mais comme ni mu waxee noonu so franc moom am na droit ne une seconde sax damay ndox bi tis ko dina xam lépp dëgg la incha allah waa ñu woo ñëpp. ah. arène nationale. Mhm. ma leen di féliciter di féliciter particulièrement nag De per Père De Gaulle ndaxte initiative bii ñoom ñëpp wax nañ fi manqué nañ ne moom moo ko jël mais rafetlu ko bu baax a baax di wax ne lii la ñuy xaar ci Pikine doomu Pikine dañoo war di na booloo saa su ne saa yu ñu booloo nag lépp lu ñu yëkkati rek incha allah nañ ko daan te bu soobee yàlla le 19 soog dina ko wanewaat ñu ngi koy ñaanal ndam lu rëy a rëy mu delloosi ko fii ci biir Pikine. Pikine gépp ànd ak moom di ko feete incha allah rabbi euh, open press bi da koy def te bu soobee yàlla it depuis open press bi dinañ fa dem dinañ fa taxaw dinañ fa feeñ ba yàlla sëñ Mansour di ko félicité di ko ñaanal ndam lu rëy a rëy di félicité surtout nag 200 pour cent bi di leen ñaan ñu jàpp ci mu te bañ a dakk incha allah rabbi non non lii du sas ci man li tax ma ne du sas ci man sas la du sas ndax bis mënuñ koo yenn di dox ak moom préparé nañ bu baax a baax a baax te it gëm nañ ni am na lu nekk ci ñun ñii fi taxaw ni yëpp buñ gëmul woon ni sox war naa mën a nekk champion amuñu temps bu ñuy perte waaw te xale la te lii nii dafa am nu mu may def te le 19 dinaa wane lii am na lu mu def incha allah. le 19. waaw waaw le 19 rendez-vous la. xam nga dañ ñaan doomu Pikine tamit. ñoom ñëpp ci mobilisation bi ñu ñëw jàppale soq suñ boobu may ko ndam. comme ni ñu ko gisee nii rek. le monsieur le maire Abdoulaye Timbo suñu papa dafa wax lu am solo tamit. loo xam ne ñun ñëpp nañ ci bàyyi xel. mu le fait que lii mu sax mu dëggu te mu yàgg parce que loolu mooy suñu intérêt parce que 200 pour cent Pikine bi lu ñu mën a may bari na nekkul côté le fait que ñu booloo rek entraîné bëri daal. mais côté bu nekk mën nañu may lu bari te man dégg naa fu mu waxee te gars yi dégg nañ ko nañ ko fonk ñu bokk ndey bokk baay ñu mënta tàggali ko dañuy ànd daal ñu ciy félicité di félicité suñu papa yi nga xamante ne dañoo bàyyi seen lépp ñëw jàppale ñu di nuyu presse bi bu baax di wax ne nag incha allah open presse sook demee la incha allah bàyyi ñëpp ñëw teew ñu dooleel ko bu baax làmm ci tamit ñu dooleel ko su boobaa suñu borom may ñu dem incha allah. Euh, pour terminer borom 200 pour cent Pikine l'initiateur. waaw waaw waaw ñun waaw ñëpp ñu woo waa Pikine yëpp mhm. suñu xol seet na bon parce que ñu ngi woo maire yëpp rek Isaaxa waaw ñu ngi koy woo di woo maire Pikine yëpp waaw di jël lo woote boobu teg ko si loxo Ablaye Timbo di woo Daw Ñeng Ndiaye ancien maire ak euh, Pape Sagna Mbaye di ko woo ñoom ñëpp ñu ngi leen woo bépp responsable Pikine Timbo ngi lay woo jara yow xam nga ñu xam ñun ñëpp ñëpp Timbo wax na ko léegi presse bi jël na ko mu ngi woo ñëpp ay morom meeram yëpp ñun nag ñu ngi woo population Pikine yëpp waaw ñu ñëw open presse bi ñëw stade yàlla may ñu ndam si kàttanu yàlla ak bar barki yant bi ñu ngi ñaanal Ousmane euh, Ablaye Timbo lii mu def nii loolu la njaboot di def waaw ñu ngi koy yëgal tamit loolu président Macky Sall na ko Pikine ànd nañu doole nañu ñu ngi sa ñu ngi sa gën ñu ngi sa ñu ngi ñaan jàmm di nekk si ginnaaw Ablaye Timbo waaw Ablaye Timbo nag mënuñu ko fay maire la boo xam ne kenn mënu ko fay waaw ubi na buntam si maire bi ubbi na buntam këram waaw te ba léegi mu ngi dëkk Pikine jógul Pikine de laa ko tëjowul de jërëjëf. waaw kii conclure nag kii conclure nag moom mooy euh, le gri waaw waaw message de sensibilisation rek ci jeunes yëpp.

lekk naan kafre lekk ay crème xamal naan ay boisson ci kaw ku daan sa morom ñu joxante loo xam ne sport mooy gagné xam ne làmb mooy gagné maa ngi lancé appel képp koo xamante ni doomu Pikine nga nga ñëw ci stade bi pour supporter Sokh mu nekk ci yar ak teggin parce que ñun dañoo bëgg daan te bi ñuy bëree bu ñu ko xaañee làmb du am ñu ko gaañee làmb du am nañ ko bàyyi mu ñëw ànd ak ay supporters am dugg toog ñu kaf ree ñaari mbëri tous ambiance yi làmb gagné ci ñu ñaan suñu borom defal ñu ndam incha allah Vous êtes jeune bachelier, étudiant ou professionnel. Vous êtes créatif, ingénieux et passionné par les domaines qui gouvernent le monde de la science et de la technologie. Profitez de l'offre de formation dans les filières telles que réseau et télécommunications, statistiques et informatique décisionnelle, gestion des entreprises et des administrations, gestion logistique et des transports. Cela vous est offert par Ziguinchor Institut Polytechnique, ZIP. Les inscriptions sont en cours et se poursuivent il est encore temps d'effectuer vos démarches pour une admission dans l'une de nos filières. Pour plus de renseignements, visitez notre site web www.zip-du6edu.sn ou par mail secrétariat-du6-edu.sn, téléphone au plus 221 33 991 00 68 ou au 77 460 16 09.